jërëjëf ñu euh, jël si waat fii si Star TV sport bantaba euh, ñu jégal bu baax a baax rek euh, last week mënu ñoon a am sport fii si biir lii di ama kër Euh, tey nag dinañu xool lépp li nga xam ne rek mooy ruuse si wàllum li tàggat yaram fii si biir réewi Gambia euh, xam ngeen ne programme bi euh, a waxtaane fii si biir lii di ama kër gi tey nag li ñoo gën a waxtaane mooy Gambian ama player former Gambian international ama goalkeeper la kii di Badembo ama Touré moom nag tey dinañ waxtaan ak moom ndig ne nekk na ku nga xam ne player la li réewi Gambia si ay at yu bëri waaye tamit benn tey gis woon ne lu mënta lokki pour qualifier loolu réewi Gambia si AFCON Africa boobu nation bi euh, moom nag am na jaaxle bu nga xam ne rek euh, wane na ko ak naxar bu xam ne wane na ko euh, si ni ñuy roñee football fii si biir li dema réew mi ba tax na moom dina nekk bu nga xam ne tey dinañ waxtaan ak moom lan la foog loolu la ñu war a def ba gis ne réew yi Gambie dinañ mën a qualified ak yeneen li nga xam ne gis nañ ko on social media wane ne moom di Badembo Touré ak kii di dem Demba Sanyang Jatoo Cissé Ibou Sila nekk nañ ñi nga xam ne pare pour ñu taxaw ak kuréel bi kii di Lamine Kaba Badio su fekkee ne time yi élection euh, jot na pour ñu toog jël lii di football réew yi Gambia pour govern ko euh, ndig ñoom li ñu gis rek mooy ne euh, ñooñu nekkuñ di raaj people pour war a doxal lii di football dina nekk lu nga xam ne dinañ ko waxtaan ak moom kii di Badembo Touré Euh, bu ñu foofu tamit rek dinañ waxtaan ak kii di Lamine Baro mu ngi foofu si biir li di Angleterre moom it nekk ku nga xam ne rek euh, ku toppalu di football yi Gambia la jamono bi euh, dinañ xool jamono boo xam dañ draw seen diggante ak ñi di ama Djibouti si preliminary round bi suñ fa bàyyeekoo dinañ xool groupe bu nga xam ne moom lañ war a pour a play pour rek war a mën a qualified si 2020 Africa Cup of Nations bi groupe boobu nag su fekkee Ida Gambia au Djibouti ku si mun di qualified rek di nga fekk ñi di Angola eh, di nga fekk ñi di Gabon eh, di nga fekk ñii di DR Congo eh, kon dina nekk lu nga xam ne dinañ ko gën a waxtaanee fii si biir lii di ama kër bi man ma am ko ak kii di Ibrahima Kampo fii si biir di ama kër ji Kampo ñu bàyyi nga nuyu ñu nga xam ne ñooy la seetaan fii si Star TV Sport Bantaba. jërëjëf ah, Mbaye ah, nuyu ah, suñu mbokk ñaam ñu ñëw seetaan comme na ko wéyee last week mënut a ñëw ba this week uh, available nañ so ñu sant uh, yàlla si loolu so na guys stay tuned rek uh, na enjoy the show it's going to be interesting. all right uh, thank you very much Kampo uh, uh, nga xam ne jamono bi rek yéen a ngi toppal lii di Star TV ama sport ama bantaba fii si biir lii di ama uh, kër comme ni nga ko waxee rek tey suñu guest Badembo Touré la Badembo Touré la bu ñu ko déggee mooy former Gambian international ama goalkeeper tey moom la ñuy waxtaanee foofu sa ama bitim réew jamono bi une minute dinañ ko am si line bi dinañ waxtaan ak moom lu ñu njëkk def rek mooy dinañ dem si ama studio room some highlights yu nga xam ne gis nañ Badembo Dembo Touré mu ngi ko doon def foofu sa bitim réew ñu jégalu bu baax a baax nag mënuñ ko woon a am euh, mënuñ koo am si lu nga xam ne rek foofu lañ ko war a amee mooy Gambia euh, lu mu player li di Gambia waaye nag ne dinañ dem xool Klopp seetam bi xam ne ñëpp leen a jur garden euh, dañ dem xool lu nga xam ne rek Ba Dembo Touré def na ko fa su ñëwee nag ñu dem waxtaan ak kii di Ba Dembo Touré si way forward for Gambian sport ak lu nga xam ne jamono bi ñu ko koy tuumal ne ak incumbent bi kii euh, pour jël lii di football yi Gambia euh, kon ñu dem xool yi euh, shot vidéo bu nga xam ne amal nañ ko kii di Badembo Touré foofu sa bitim réew. utspelat i onsdags har nu rest sig på nio och men än inte slut. Touré får göra en räddning till och en till. 90 sekunder kvar.

<laughs> Vilken Snacka om effektfull avslutning! Och eh, Bois är förgrymmad Eriksson att de inte får slå hörnan efteråt, tror Ja, men att tiden slut så är tiden slut. Det är ju... Bois aggressiv mot Jonas Eriksson, vill ha en hörna. Men eh, Flavio i den här positionen. Inspelet mot många i mitten. Nicken kommer och en jätteräddning av Padembo Turay som räddar Djurgården i matchen och som nekar AIK en poäng i derbyt. Nicken från Burgic, men Djurgårdsmålvakten Padembo Turay räddar. Ja, det är ju rena sex mot fyra i slutet av en hockeymatch. En riktigt fin forcering från AIK. Och det var inte riktigt Jonas Lantos dag på stadion. Här då får han ju ett jätteläge. Helt ensam kommer han mot Padembo Turay i minuten och där skulle Lanto ha satt för Gävle men Padembo Turay gör ju en fin räddning där i hela... Svenska mål den här säsongen och två av dem har kommit mot just IFK Göteborg alltså. Han gjorde mål även i bortamatchen för Djurgårdens del mot i Göteborg, den oavgjorda matchen. 1-0 10 minuter kvar och där kommer nästa läge för Göteborg. Det är offside vinkat. Efter stolpen så är det offside på spelaren därefter som nickar. Och det är så nära att Göteborg direkt, bara spelminuten senare, alltså kvitterar. Selakovic med nicken och Tobias Hysén offside på returen. Vaket a assistent. alright uh, jërëjëf loolu nekkoon jaar jaari kii di Badembo Touré rek uh, comme ni nga ko gisee rek uh, lu ndaw lu nga xam ne wan nañ ñu ko kii di Badembo Touré képp ku ne Badembo Touré rek war nga koo xam moom la woon gisoon nañ Badembo Touré ñoom George Lova ñoom Moussa Badiaha ñooñu nekkoon nañ ñu nga xam ne rek gis nañ leen si football bi fii si biir lii dem réewi Gambia tey nag gis nañ ne lot of noise mu ngi xew si social media ne ñooñu pare nañ pour gis ne Euh, football dinañ ko jël ñoom ñu govern ko euh, fii si biir li dama réew mi euh, doxal ko loolu la nekk na lu nga xam ne tey dinañ ko waxtaan ak ndaw loolu ko kii ba Bah Dembo Ama Touré lu ñu def rek mooy Kampo quick rek balaa ñu am Bah Dembo on si si line bi technicien yi ñu ngi jégalu bu baax a baax mun ngeen ñëw Bah Dembo si kanam tuuti bu leen ko amee rek mun door ak waxtaan ak moom Kampo ñu gis rek nga xam ne def na ko si amaat clubam bi te nag mu ngi doon seet tamit réewi Gambie waaw unfortunately mënut a qualifier loolu réewi Gambie waaw on a those days amuñ that time of our professional ba dem nekk na player player boo xam ne is one of our best uh, goalkeeper xam after bu jooj jooj la ba bàyyi retire after moom moo ñu moom moo doon ci lañ ak Moussa Bayaxa Moussa Bayaxa mm-hmm. nekk na koo xam ne is very eh, instrument a the post leader la daf giant giant goalkeeper la na jogaar yi xam nga team si bëri sol nañ ko woon in Belgium mm-hmm. in Sweden mm-hmm. non sorry in Belgium ak fii euh, euh, ak Portugal even di Premier League bi sax waaw dafa décidé pour mu steel jogaar yi di may gars ba Europa League euh, qualif qualification ba gaa dem si group stage bi gaa dama leen Champions League play play off Juventus Juventus a win leen mhm. so since na mu ngi loyalty team bi mhm. te mu ngi outstanding spend ba moo doon a a dëkk club bi mhm. after ba club bi sax jël ko gaa yi def qualifying naka sa ambassadeur mu nekk si coaching staff bi tamit gën naa mu dem sottaan mu dem South Africa Santos after mu delluwaat Sweden so ku mel ni kooku tamit su wéy dafa bugg a nekk GFF ah, président pour cëreen lii. accord lu ñuy ah, gis. waaw ak lu ñuy rakam bu ko na fa xam ne GFF bi nu mu mën a ñëw de di daañu ñëw Gabi Chaussé ak ak ñoom Sidi Sidi Gindé Obi Konaté yëpp. Hmm. fekk na woon ñoom Badi Mbow foofu soo xam nga rek ñu su dafa si et c'est right sa right ma misa suma right su ma bëggee because of ah, football ñëpp a a si bon. ok soo soo ñu ko ñu ngi ko very good la su dee dafa bugg a <laughs> nekk GFA president but his performance speak for itself. Mm, uh, mm, mm. there is no doubt about it because he is one of the Gambian finance goalkeeper even in Sweden soo ko demee nga ne Bademou Touré everybody know them especially club bi uh, Joe Garding Alright, uh, thank you very much Kampo uh, dégg ngeen rek jaar jaar yi ama Badembo ama Touré foofu si biir lii dama Sweden uh, li may def nii rek mooy jamono bi su fekkee am nañ kii di Badembo uh, kon nag dinañu ko may rek ñu waxtaan ak moom si lu nga xam ne rek ne moom war a ak kii di Badembo ama Touré si nga xam ne rek jamono bi gis nañ ko foofu sa ama social ama media tamit gis nañ tamit Badembo Touré tamit rek am na interview bu nga xam ne rek recently am na ko jamono bi pour rek tamit di wax si wàllum lii di football yi ama Gambia fii si biir lii di ama réew mi kon nag tey kooku moo nekk suñ ama moom lañ ñëw waxtaanee si euh, sport bantaba dinañ gën a far di gën a ndaw yu nga xam ne rek ne euh, play woon nañ fii si réew yi Gambia euh, waaye nag gisoon nañ tamit rek a mun a def ba gis ne réew mi dina mun a ma dem comme ni ko waxee nag première round la ñu ñëw play si suñ diggante ak ñi di ama Djibouti dina ñëw xool nag Djibouti ban façon réew la Djibouti li ñu def si wàllu di football ndax Djibouti mun nañu Gambia pour dem si proper ma qualification bi comme ni ñu ko waxee rek Angola la Gabon Euh, DR Congo euh, jamono bi euh, DR Congo ñëwoon na si Africa Cup of Nations in Egypt Angola ñëwoon na si Africa Cup in Egypt kon nag ni another noora pour Gambia national ama team bi la ñan la ko cam war a yóbbu loolu tamit nekkal nga xam ne nañ ko waxtaanee waaye bu fekkee am nañ kii di Badembo online rek dinañ def pour rek waxtaan ak moom xool lan la jàngate jamono bi ba Badembo ñu nuyu la fii si Star TV Sport Bantaba asalaamaaleykum jërëjëf waaye ma leen def nag all right uh, jërëjëf thank you very much Mr Dembo first of rek ñu am uh, congrats la bu baax a baax uh, am kontante jamono boo xam ne rek on on woon nañ la pour rek ñu mën a waxtaan ak yow di way forward for Gambian sport nga nangu ko nekkoon e former goalkeeper si national ama team bi naam ne sax mënuñu woon qualified si seen time waaye tamit ñu bëri wax nañ ne foofu ngeen doon gën a play lu di football first of all Dembo lan mooy sa réaction sis boo jégalee li ngay gis Gambie di struggle ci football. jërëjëf si laajte bi suñu struggle nag si football Gambia dafa doy waar because su ko bëggee wax moom fii mu ne fi toog fii ba ëllëg. Mhm. football Gambia daal man dama gis ne daal first of all ñaan bokk na si wat nañu ñaan. Um, man li ma man li ma expérience ci football yi Gambia mooy um, dafa am ñu bari ñoo xam ne suñoo gas ñi suñoo gas ñi dañoo suul. ok te football te suñu boobaa punda baay bari rek waaye du dunteen fen um, dafa am yoo xam ne mu ngi ci biir football yi yoo xam ne suñ ko si jéenewut rek football yi du mun a dem kanam. Euh, lan lan lan mooy ah. loolu nag lan lañ war a génnee. first of all dafa am ñoo xam ne dañ la war a génne si football Gambia ñoo xam ne they have nothing to do with football ah, bu ñu fi doon play football ñoom they were doing something else. Okay. Um, from nowhere man I have no hard feeling for anybody man li ma bëgg rek mooy Gambia football mën a jëm kanam you know it doesn't matter kan moo fa nekk whatever waaye su ñoo def the right thing pour make sure Gambia football mu dem kanam I will support waaye dafa dafa am ñoo xam ne dañ nekk si GFA bi ah, ba pare amul amul any connection with football so yow soo amul for example tey man su ma woon a toog xaw ma anything about journalism mhm. fu nga ne ah, do you think I can able to do that work I will not du ma mun a am lu ma def du ma mun a am yan question lay laajte ak lan laay war a mun a def ak ba mun a tax ma mun a you know, prosper in, in journalism. You know what I'm saying? Yeah. So football bi tam loolu la ku nekk dañ la war a jox li nga yelloo. léegi léegi man I will euh, make this euh, nga foog ne ñoo nekk si football te xamuñ football nga ne boo leen play football ñu ngi woon si leneen. Mm-hmm. Um, ok boo waxee tamit nekku ne damaa generalize everybody ñu work si GFA bi am na ñoo xam ne bu ñoo bu ñoo bu ñoo bu ñoo necessary football man fekk ay ñasa juddooguma or oh, maybe I was a little boy um, am na ñoo xam ne ba tey ñu fa ñoo xam ne dañ am football you know ndax wa ndax ñi ngi def di right thing pour dem pour Gambia yóbbu football pour Gambia dem uh, kanam football bi I don't know because léegi-léegi tam being around football do just doesn't know ne xam nga football you understand mun all you all you know all naka naka laa ko waxee sax mun ngaa nekk around football all your all your life. waaye tamit xam football tam dafa wute. so ñun foog uh, naa man foog naa problème boobu leen am Gambia da ngaa gis ñoo xam ne dañoo toog tey la wax ne man dama yaaga si football yaaga naa si football waaye pour ñu analyser la et single football sax munuñ ko. ok they can. ok léegi léegi lan nga ñu mën a lan nga mën a différencier euh, yow boo doon play football ak ñu xamuloon football ak jamono bi ñi nga xam ne ñoo xamul football ñu gis team bi di play. Um, man fekkee naa tamit tamit Gabi Socé. Mhm. fekkee naa tamit uh, Obi sun sun mhm. papa Obi Konaté. Um, fekkee naa loolu yëpp play naa play naa seen onda. Ah, man man dama jull fekk ah, ah, dad Obi mu ngi mu ngi run football. You know, um, you can say so many things about him, but then I think trying so much in the Gambian football. Amasa, Uncle Gabi, the same thing. nga ñëw fekk fa Sidi Kinte tam you can say a lot of things about Sidi Kinte waaye foog na bu mu fa nekkoon as a president di ranking you know in FIFA ranking whatever demoon nañ tollu woon nañ foo xam ne. 65 at least it was ok waaye léegi soo xoolee léegi ñun suñu ranking fan la nekk. Mhm. ba pare ñun suñu jamono time boobu noonu you have few professional players. yeah maybe nañ foo xam ne even though mënuñoo yóbbu Gambia. Gambia to African Cup or whatever. Why, why FIFA ranking, we, we, we were much better. Than this team? Tay, yeah. Tay, so what a whole Tay national team. All these professionals you um, ah, mënuñoo mënuñoo am say good ranking in FIFA rank si FIFA lifin bi mënuñoo am ay good ranking lan moo ko waral lan lan moo waral because kon naa dem war di toog di laaj yenn question lan moo Gambian football mënut a dem mënut a aaga fu mu war a aaga lan la. wel monsieur Debo euh, ñu gisoon yéen seen time nag euh, da ngeen doon yaakaar trop pour war a uyu si leen ooyee si international euh, jamono bi ñu gis. ñu am some difficulties some difficulties. when it comes to these big nga xam ne yaakaar nañ leen foog nañ ne mun nañu dimbale bi Gambia nekkuñ di answer to call lan nga foog mooy problème bi ak lan lañ war a def. Um, really Alay this time you know Alay um, den den teel a yëg seen boppa so some of them man lu ma foog den teel a seen seen boppa um, man ñun ñun fayal leen su na jël leen su own xaalis di fayal di jënal dañ daa yaakamte Gambia kool ñu ben ben ñëw Gambia please man dee fee ñu mu amee xaalis ba te waaye hey defal naa ko Gambie su ma su ma gë laa ko defal mhm. am understand um, lu nekka daj nañ ko si si Gambien football façon hôtel bu nekkat dëkk nañ fa façon travelling route bu nekkat jël nañ ko da ngaa àgga sax nga fatigue nga soona you you know become fatigue loolu yëpp def nañ ko so um, waaye dama fiil ne xale young boys si tey dañ la a la teel a yëg seen boppa dañ teel a gis seen boppa you know um, te loolu ah yeah leneen tamit euh, ñu wane ne ñu gis ne Badembo dafa gaaw a jébal ama dafa gaaw a bàyyi retire pour national team bi waroon naa gën a mun a pousse dimbale euh, national team bi waaye pression moo bëri nga bàyyi national team bi lan lañ su mën a wax because siis boo bàyyee waxuloo ah, man loolu moo woon suma intention to be honest sax play play ba xam ne fu mu nekk nii man pare naa sax ne ok fu mu nekk doy na waaye ji nga yëfi Gambia dafa doy waar Mhm. Gambia nit yi ñoo la dee bàyyiloo football ñoo la dee ñoo la dee bëgg teg benn pression boo xam ne you know um, jaru ko man maa ngi remember suma last match bu maay play for na it was against Burkina Faso away then ñu am guy home ñu am a mm. uh, press conference mu am yenn journaliste su ma doon laaj kan laay may young goal si pour Um, pour pour ñu take over then then that question really make me mad man I was on top of my game man mm-hmm. my I was the first choice in Djurgården I was the team captain in Djurgården yeah one of the best goalkeepers in Sweden lu a journalist bu dee yow da nga xam sa liggéey xam football lu tax nga laaj a question like that in the first place mm-hmm. man I was one of the oldest players time boobu noonu so lu tax a journalist mu ma war laaj that kind of question in that situation that we were so loolu make me so mad ma ne you know what after this game I'm gonna retire ma jox young boys ñu play. waaw ndax foog nga ne ñu war a ko di su journalist su journalist ba di di laajte loolu kon dafa am ñuy ngunu ngunu su ron te man ñu fii ay ay wax yu see yooyu du suma affaire man loolu mënuma ko. alright mën naa ñëw def su ma liggéey pare jëm yi dem that's it waaye ma xam ne kooku noonu correction boobu mu doon laajte noonu daf doon ñëw ici si wax bu bari si biir réew mi so moo tax ma decide you know what now time for me play naa fifteen years suma suma réew defar naa lépp yu munal gars yi so about time for me naa bu ma jógee ba say at mm-hmm. si leen amoon problème boobaa ba léegi sant yàlla Toldo is doing so well. ok euh, léegi lañ ñëw nag si li nga xam ne gis nañ ko on social media euh, ne oh. yow Bah Demba Touré euh, kii di ama Demba Sanyang Jato Cissé Ibou Sila Ousmane Diallo pare ngeen pour ñëw face incumbent bi pour nekk GFF pour ron GFF ron football Gambia lan lañ mën a wax si loolu um, ok man am bëggoon a make this thing clear ah, man musuma toog wax ne dama bëgg a ñëw pour jël GFA as a president of GFA. su ma koy ña people loolu option ah, people opinion la rek seen opinion la ak yu demee noonu. jamono mhm. sax people have to be honest man am am gonna be honest you know to myself man anam man pour man pour nga ne ma ndax I am ready to run GFA. Mhm. personally I'm gonna tell you no I'm not ready yet. waay ok waaye bu dee si coaching staff bi la au technique la ah, yooyu soo ma si buggee dugal awul def finaliste ku nekka ku nekka ku nekka fi nga xam pour ron GFA bi to be honest with you man am not even ready for that right now ok waaye soo ma noonu ne isi kenn si coaching staff bi loo xam ne yaaga naa koo laaj gars yi neneen le isi leen ma si technical staff bi oo isi leen ma as a goalkeeper trainer you know Um, I will help the goalkeepers loolu wax naa ko ba wax naa ko gars yi ba sona kenn moo ma faalewu ndax mus nga ko wax ama football ñu doon autorité ñu doon football mus nga waxgaane yow waa willing to come uh, bu ma nekk South Africa loolu was uh, uh, like bu ma gars pour ma ñëw place yi benn time you know what man foog naa ne man fu nekk am doon as a goalkeeper you for the national team ay su ma mën naa ñëw dimbale si Gambia goalkeepers that I war a am Djibouti from there su fekkee mën nañoo qualified ñu dugg si proper uh, stage bi comme looy ñaawlu ranking bi moo ñu dugal si loolu jamono bi lan nga ñu mën a analysal ak lan nga ñu mën a woon Gambia Djibouti. Um, Gambia Djibouti foog naa ne match match boobu noonu you know I mean with the kind of we have and all those things man Djibouti sax guma ne sax mus nañoo win any game sax. musuñoo win so ah. musuñoo win musuñoo win. exactly you know so pour ñu ñu wala Djibouti I think you know match boobu is a must win. you know, soon we know Djibouti for our national team, we don't go what just, then what I just cancel the whole national team. Yes. Yes. Then go just what from GFA, basically last player, you just terminate everything because, because I mean, we cannot just go and lose against Djibouti. No, we can't. Soon, soon we wanna, soon soon home base players. For now, one team. Yeah. Well, daa uh, ñuy wool tamit diggante coach bi ak players yi it seems ne dañ nekk di am some difficulties with the players uh, gis nañ our big players benn tey ñu ngi bañ a ñëw ku mel ni Steve uh, ku mel ni Hamza Bari ku mel ni Modou Seka Baro gis nañ ñoom Souleymane Mar recently visit na ko loolu ñu mën a jàngat si loolu ak lan nga foog ne moo war a xew because foog naa ne players yi dañu war a loyal to the nation dan to the coach yow lan mooy sa advice ak coach bi in general why waaye why why Fogolone players you know they were ready to come one, one Fogna in the beginning. Okay. Coach be more than invited. Coach be first of all Mundo one Steve more play China China Amud or whatever you can Hamud. You know, Munyo the one wow Mobudu Barodu score goal, how manaka naka naka. Those those play our key mm-hmm. players. Mm-hmm. Those were players. You know what I mean? Steve Steve was scoring every other every every, game. Hey, ba pare naka ngaa mën a bàyyee players yooyu parce demee ba si ba si kanam players yi dañoo yëg seen boppa man defoon nañ ma ko man defoon nañ ko man defoon nañ ma ko benn time Gambia. I came to Gambia war a play ma feebar ah mënumaa dem play after GFA stop di ma oo oh, ñu ne ñu ne I have to write an apology letter. apologize to just for come to come back to the national team again. Well, then to hell with that. But, but, but after you know, Paul put Paul put me in national team. Be? Yeah. You know, Paul put Monyen set my football. He is definitely a goalkeeper that we need in the Gambia. you know so mu wax man ñu toog ñu waxtaan loolu moo tax ma dellu si waat bu Paul pour ñëwee si Gambia you know as a coach so jamono yi euh, Mr euh, Ba kontaan bu baax a baax rek euh, waxtu mu ñu waxtu mu ñu jàmpa jamono bi lan sa recommendation si both fédération bi players ak coach si man man soo ma laajee soo ma laajee coach bi dafa yab Gambian si in the first place mhm. ba pare Gambian ko seetaan kon ne xam nga ba pare man dama bëgg a jéefee ñu stop about this tubaab yi ñëw ici nii ñu ñoo nekkal suñu coach man foog naa ne tey am nañ players yoo xam ne mun nañoo nekk tey Gambia coach. for example yeah, players players like who. Ka tey mu ngi mu ngi coach in America tey. Mm-hmm. you know mu ngi coach Idrissa Sonko mu ngi coach in Dubai. ah yaa ngi am yaa ngi am kii naka Dudulum mu ngi Norway ah so. Tila yoon Jato yoon yoon yoon yoon kii naka uh, this boy in England doing so well ah, Samba waaw Samba okay you know so ñooñu yëpp they are doing so well man I'm not even talking about myself I know I'm coaching here as well as a goalkeeper in one of the biggest academy here you know mhm. what I mean so waaye foog naa ne war nañoo mun nañu war nañoo mën a jox yaakaar suñu boys yi ay eh, eh, kii naka Aliou Cissé ban ban ban ban European team la coach. non koo ñu fenn. in Sénégal Sénégal Sénégal exactly Sénégal foofu la am right. yo mhm, Sénégal mhm. sax. yóbbuwul teamam bi World Cup. yeah absolutely. démb rek yóbbuwul team bi senegal eh, final. yeah. Sénégal dañ ko jox chance bi. lu tax óolu pour ñu jox ñu chance bi pour ñu ñëw ñu ñu ñu dimbale su national team bi. nga lu xew gars yi dañ ragal dañ ragal booy si because xam ne ne su booy si ñëwee dañoo ceeñ lu bari foofu noonu <laughs> compétition boobu la gars yi bañ waaw <laughs> loolu because xam ne ne su ñëwee foofu dañoo ceeñ lu bari xamante nañ ñu mi neen xamante nañ yeah absolutely so gars xam ne nañ su fa ñëwee dañoo ceeñ lu bari yooyu bari yu xew foofu noonu dañ koo ceeñ ragal boobu la yi moo tax dañoo dem si coach bu am ñu ñëw su ko telee gars yi di ko lu nga ko wax ko ku def ok lii mooy problème bi gars yi ñemañu ñu de ñu ma ñemañu boys. right because ñun dañoo ñëw challenge dem bu baax a baax. jërëjëf Badebo thank you very much kontaan si bu baax a baax. ah jërëjëf you welcome. jërëjëf thank you very much kooku nekkoon Ama Bademba Touré euh, kontaan bu baax a baax rek am ko euh, fii si biir lii di Ama studio bi comme noonu déggee kàddu yi nga xam ne rek kampu euh, Bademba na fi lu bëri wañ na ne coach Tom dafa yab lii di Gambia in the first place hmm. wañ na ne Djibouti su fekkee wér nañ di Gambia dafa mel ne from the federation to all the players ñëpp dañu war a bàyyi euh, national ama team bi ak fédération bi si boppam euh, wane na ne it's high time ñu jëli booy yi ñu ñëw euh, yore national ama team bi ndig moom pare na pour ñëw liggéeyal di réewi Gambia as a coach trainer ndig ne mu ngi koo def one of the biggest academy in Europe so jamono bi noo jàngatee kàddu yi nga xam ne gis nañ ma wax na ko jamono bi waaw lu mooy ay absolutely ah, concur with him man sa uh, loolu laa wax ma ne is we must qualified against against against against uh, Jubi dem a must amul Dubi Dabo must win game. So it's a must. No matter what coach don't got to qualify. Amune, we have to respect them. We don't have to respect them. We have to go there and win them by and force. Lah. There's no excuse. So you give me the way you mm-hmm. Absolutely, definitely. I definitely concur. The entire national team and the coach and the, everyone should be resigned. Yeah. No, it's, mu ngi mu ngi si benn interview bi suñu benn collègue mu ngi ko interview. Mm-hmm. mu mu ngi dugal. mu ngi woon ne ninety five percent this, this another place. That's uh, uh, take us in this second. People don't qualify that. Fail it. Squad don't go in. Yeah, we are not playing. We play week in, out, not play regularly. But now I'm going to maintain this some of the players. I mean, some of the players. I mean, club right now. I mean, playing times and teams. Nobody is getting that. They book up maintain guy. No, it's wrong. Let him select the right people. and selling them the best selection of doing it. I'm going to maintain this place. 90% of them, two or two or three cheap fees. It's, it's long. But they, look what they have to invent some of our big players in national team. Now I'm the negotiating national team. I'm the inside of the outside of the national team. Yes, one of you didn't munge coach. Ilse songo munge ah, munge coach. Njoto munge coach. Mose munge coach. Naga ezi munge guy coach munge. Chama kutuba. Tuba ndeko nyo puru jagar bopam. Super rafa dem. exemple Coupe d'Amérique Javier bu wiinee coupe bi Zambia fu dafa ñëw Zambia mu dem France loolu six mois nga yi daa ko mu mu dem Afrique Coupe mu wiinee Afrique dem Lille pour ñu war boppam tamit daa ko léegi Morocco léegi léegi daaxal ko léegi tamit Morocco ku te bagat dima la daal kontaan si history for the first time two local coach ah take their national team to African Cup of Nations mooy Aliou Cissé ak ak coach yi euh, ak Giroud loolu big plus comme di wane comme letkigona ko kecce minimum there's no European coach okukoɗaga coach mo dafa ɗum European coach beren faye en 2013 mo win cobbe so fademo lungoti affaire comme ko fa ajin daga Djibouti cricket rek ama dinañ xool euh, Djibouti ko euh, coach yi nga xam ne ñoom lañ ama élève euh, uh, from two 1998 ama uh, ba 2019 mhm. uh, Djibouti am nañ si almost ama uh, many coaches mhm. si ñu nga xam ne ñoo coach bi di national ama team bi li ñu njëkk rek xool mooy in 1998 ba 2001 Mohamed Mohamed Mohamed Baada moo yore woon ama Djibouti mu play mu play 15 games no win two draw Tatin ama Luus la euh, ñu gis kii di Ahmed Ahmed Ahmed ama Hussein euh, octobre 2007 lañ ko sign euh, ba 2000 octobre 2007 ba décembre 2007 ñu daaxa ko four matches am one win no draw three lose benn ñu gis kii di Mohamed Mohamed Bada from 2008 to 2008 moom dañ ko sign from January to June ñu daaxa ko mu play four games no win no draw four lose Euh, moom loolu la am kii Ahmed euh, Ahmed Al Bahadi euh, from 2008 2010 mu play 11 matches no win one draw lose ñu gis kii di Amad Nouridi October 2012 ba 2016 five game la play no win no draw lose ñu gis kii di Michael Aba Gibson 2016 ba 2017 four game one win no draw lose ñu gis kii di Moussa uh, from 2017 to 2019. Mm. Uh, five game la play no win no draw five lose. Uh, jamono bi kii di Julen uh, mooy seen new coach bi nga xam sign nañ ko uh, jamono bi recently mooy seen code bi Kampo ñu gis nag ne Kampo Djibouti win only two games la Djibouti win from 2008. 1998 eh, ba 2019 benn ñaari game rek la Djibouti am a win eh, jamono bi ñu gis all the rest is loose so li mu tax Badde moo ne na eh, bu Djibouti génnee Gambia from the top to the bottom ñëppay bàyyi ah dégg ko mais Malta <laughs> Malta play against Sweden ma Malta play against Norway o oh, Malta mu ngi play against Spain ma naka sax Malta mu ngi play against Mbaye Gibraltar ñooñu quoi zéro point la gaa yi am zéro point ñëpp point yi foofu nga jëlee daal jën bu laata ak ñoom électeurs ya somalia noonu la mel in Africa ñun ñoo leen tane xoolal a ranking mi lekk so ñu ma dëggal terrestre level laay mu laa ñu tudd jëm ko daa mun a they are entire history of the national team so so ko maa ko mu ne fii c'est difficult ground they have a bad pitch xam nga mu ngi bëgg a kooku boppam mm. ah si action mu ne fii traveling you have to fly in Ethiopia from Ethiopia you play there and you have to come back so it's a bad a ñoo mën a Tunisie is a must mooy da ngay def taxe su ma def press conference bi ñu ne ñun amul comme we have to respect them buñ expect leen we have to expect expectation bu loolu bàyyi force la we have to be there be there booy bu ko léegi booy isa time bu ay Mauritanie booy may ay ñoom naka sax Burundi booy ñoom Uganda di qualifier ñoom Guinée Bissau waaye nag booy bu dee sax Euh, li ngay fekk ba mooy li nga fekk mooy euh, général kii Lamine ama Lamine Baro euh, in England comme ni nga ko waxee rek moom it dinañ waxtaan ak moom Euh, benn tey rek euh, xool di way forward for Gambia ama sport euh, comme noo xoolee rek Gambia dinañ play ñu di Djibouti 7 mm-hmm. octobre la ñu play away game la good news bi gis nañ ba dem boo nag lu mu wax wane na ne it's high time nañ indiwaat all these players nañ ñëw um, ñu play qualify loolu di Gambia anoon na new players am nañ ñeen ñeen invite moom mi di ba dem boo turee pare na pour gis na nag dina ñëw liggéeyal li di réewi Gambia ndig moom def na request bu waa ko jamono bi benn tey rek ci naaw suñ ko ooyee as a coach, I'm a, a goalkeeper trainer. Euh, moom Bademba Touré he is willing pour ñëw liggéeyal li réewam euh, mooy réew yi Gambia ndig ne mu ngi coach one of the biggest academy in Europe si wàllum li di coaching euh, goalkeeper kon yaakaar naa ne xam naa ne rek football fédération bi nekk na ñu nga xam ne ñuy déglu lañ bu baax a baax ñu fa nekk kon nag ne nañ xool lu ñu mën a indi ndaw yooyu tamit boole leen si national amatim bi yéen a ngi def lu rafet di indiwaat suñ vétéran players yi gis nañ ñoom biiri biiri bokk na si biir système bi ñu George Loba bokk na si biir système bi congrats ginnaaw. dafa euh, des dafa des euh, tuuti rek nañ indiwaat ñi li nga def rek mooy nañ isi kii di Lamine euh, Baro all the way England UK waxtaan ak moom moom it ñu xool si ban fànn la mu waxee moom it si wàllum di Gambia hello Mr Lamine. hello Mbaye. waaw jërëjëf jërëjëf nuyu naa la bu baax a baax jégalu bu baax rek sa time bu ma jëla ah. waaw yaakaar naa ne gis nga Bademba Touré gis nga kaddu yu mu lan nga jàngate si kàddu yi nga xam ne moom la Bademba wax. ok um, man nuyu leen yéen yëpp yi non balaa ma uh, dugg si programme bi yaa um, Kampo. Mm-hmm. good programme bi leen wax ne non non ñun dañ ko dee follow ndax ñu jee jàppale lu baax tamit non. Mm-hmm. so déglu naa Padem Bo um, dégluwuma uh, lifin bi yëpp tamit because maa ngi try tamit pour connect waaye jot naa pick you know few of the stuffs um, that he said I mean full entitled opinion you know moom num nu mu gisee affaire you is right um, opinion am la he was a footballer yeah ma seetaan naa ko woon xale he was playing football and I think they did well for the country unfortunately mënuñoo aaga fuñ bugg a aaga now ñoom eh, jox nañ jox nañ everything for us to get there even though you know you know they they, they did it in on circumstances you know, you know it wasn't very conducive but they still tried their best you know so football you know for now results matters yeah results matters why dafa dafa fekk tamit um, facilitating football federation they, can, they are you know they are doing their best and okay. their best they can do yeah, see there's football ñoo ko mun a def xam nga so they cannot they cannot come on the pitch and then do the rest for the footballers they have a part to play they need to be committed mm-hmm. they need to forget about things that are not on their responsibility li nga xam beyond them they should forget that and work for their country give it all ñoom you know they should ignore the other parts yoo xam ne you know that's not nothing to do with them let them just do their part the rest is up to the um, um, fédération ak you mhm. know ñu ñu def ñu def lu ñu war a def but I think he's right you know um, moom ba na ne you know he can come and join you know mu jàppale you know fédération bi which is good you know so that's that's promising that's promising well um, uh, Mr. Lamine uh, Djibouti is our next target euh, gis nañu Djibouti euh, only two win lañ mun a am euh, jamono bi war a play against ñi di Gambia force la bi nekk in Djibouti balaa ñu am that very difficult group stage Angola DR Congo Gabon lan mooy assessment bi ak lan nga foog ne moom lañ war a def right now GFF nag pare nañ euh, oo nañ two test game against euh, euh, Morocco against Guinée Conakry comme ma ko far di waxee rek is high time another compagnie si mooy private compagnie si chip in dimbale fédération bi ñu gis ne dinañ mën a achieve lu ñu waxee xal personally suma opinion bi mooy we seems to be on the right track because gis nañ ko already we went away ñu am two weeks man nag man optimiste la you know I love Gambia moom su ñëwee affaire yi Gambia du ma dee discourage well naa dee discourage waaye dama ko dee level because Gambia la am so maybe that could be um, a different thing with other people so man fu ma gisee affaire yi we have gone out um, démb lañ gisoon Algeria they beat Senegal on the final on how they beat Algeria so football is kind of funny sometimes football is not fair The thing is, you have to come with your plan. So today, today suñ coach bi he's got his plan and he's happy with it. Already gis na ñaari test game yu mu def away, he pulled results out. So should we should we support him or should we start um, saying you know ah Kenya Lee, Kenya Lee, working. So if it's working, man personally, suma opinion moy, let's keep it. You know, yeah. no, ko day wax broken am nga so man loolu mooy suma opinion foog naa ne um, Djibouti bi tane chance but let's not underrate that you know because comme nuñ ko waxee we we help Algeria on the qualifiers Djibouti tamit can do some they can do a surprise well so soo ko xoolee we we can produce against them why it doesn't mean ne loolu mooy happen it's football you know kula kula mun you know mun ngeen a play on your day you beat them you know that's the thing check now guys and standing they are like 195 yeah we are around 160 61, 61, somewhere somewhere around there wow So the gap is not too big, so we don't have to look at them and think, you know, is going to be a walk in the park. They are also preparing as we are ñun tamit dañ bugg a dem dañ bugg a dem. Uh, so let's personally, man, I, I think, you let's give the boys and the coach they support they need yes. and then we forget about all our personal differences at the moment mm-hmm. fu mu nekk nii is about Gambia su su bii su suñ demee bañ qualify ñu aaga time boo xam ne you know we need to change ñu nekk si kaw then we start talking about that but for now let's forget about all things and all give our support to the boys and the coach man loolu mooy suma opinion well um, uh, comme publication bi wax right now ñu woon noon a Djibouti uh, ñu ngi prépare Uh, waaye when it come to the Gambia euh, xam uh, nañ ne is one side la mooy fédération bi ñoom ñoo dee pump in the money te it's not the responsibility pour fédération bi war a pump in money government bi ñoo moom national team si su fekkee ne government bi amuñ naasu amuñ xaalis euh, li ñu war a def rek mooy ne nañ work with the private sector pour gis ne dinañu mën a dimbale waaye at the end bu teams failee we point fingers to the Gambia Football Federation te léegi-léegi foog naa ne xam ne léegi léegi it's not their responsibility pour ñu def yeneen yi. absolutely mbay loolu is a good point um, comme nu ñoo wax ni yëpp team yi tamit yu bëri ñoo wax ne dañ qualify um, ñoom Mauritanie um, naka la ñoom Burundi yu ñoo wax yëpp have we done a background check na check nañ lan la seen dox nañ def. uh, to change things, their mhm. contribution. loolu mm -hmm. you important that we have to check on those things. And what did our government do to change in Sunbositami? Because you, you know, I we understand you noo sports is not some government yelling seriously. If you yeah, absolutely. you know ñun time boobu suñu demee football sax you know soo ñëwee sa parents yi jàppale you know yow anaa la nga foog ne football métier la time boobu la ñu bëri ñu daan concentrate si football because they know it was important you know, so Sen government, Egypt, you know, they are putting to, to, to the development of the football. You know, so loolu their football, compare, know those difference force, ñoo start the point fingers on the GFF. Because honestly, uh, ah, GFF, am not part um, uh, for our football development. why the money they knew for is all all for them to spend everything on on the national team that they have other areas to put into our uh, invest. I would the new sponsor GFF and Finland sponsor is going to be help the grassroots more yeah. in that So you have to share from the grassroots then you basically go with the national team vitamins. No, I you know man man government you know at least you know wane wane doomi réew yi ne ñun sport dañ ko jël very important and we are going to pump a lot in sports until we get a result out of it while it's not gonna be just for the sake of it nga dugal tuuti rek you no nga ne ah at least dugal nañ loolu is not gonna work you know it's high time comme noo ko waxee suñ government bi tamit take responsibility of the team ba pare tamit maa ngi ñaan tamit suñ goal players yi no is stopping them to come um, let them come and help forget about what is happening see your country comme noo ko gisee woon bi nga doon play see way still down nga ñëw nga ñëw nga ñëw jàppale affaire bi suñ aagee foo xam ne you know you want to you want to throw your heart in the ring come put in you know nit yi ku nekk ak sa opinion la ku la bugga pour nga jiitu kooku yow laay support kooku yow laay parler waaye for now you know ñu bëri ñu génna ñu dégguñ la yaa ngi def sport bantaba bi man you know what is wrong with other players come on let them come out na gaa ñëw ñu wax ñu dégga lu lu ñoo wax you know ñu dem si fédération tat bi tamit ñu dégga tamit ñooñu tamit lu ñoo wax waaye suñ toogee si ganaw di nekk di complain foofu I'm not saying that's what all they are doing but ñu bëri they are not coming forward they have to mm. come out how many times suñ yi you yi nga xam ne you know we were hearing them when we were down how many times do we see them in sport platforms ñu ñëw ñu ñu yónnee Euh, monsieur Lamine ba tey leneen li mooy ne wane na ne euh, moom dafa dégg rek loolu moom parewul pour war a jël GFF nekk président parewul ko amut knowledge bi right now lu mu bugga mooy ne ñëw si saati góor trina pour trinal lii di ama ndaw yi waaye amul benn interest pour war a nekk GFF président wara a bokk si ñu nga xam ne ñu ngi yoroon GFF in general. loolu for is one nu mu tamit yoom part part bu mu bugg a play um, in the coaching areas uh, I mean if he if he comes in to, to the GFF I don't think the GFF dinañ dinañ dinañ am dinañ just talk out of the blue ñu ne you know we are not going to take you there will be reasons so ñun ñoom suñ ko jëlu mm-hmm. tamit they will have to come out and explain to people what is it what is wrong why they don't want to involve them you know that's that, that's what I think you know um, comme nuñ ko waxee he didn't start um, from anywhere he just started from Senegal but how much commitment did he show to the football federation in Senegal ne I want to play no matter what gis nañ fi benn quote buñ dee use Facebook ne Aliou loolu loolu la wax I don't need any millions I just need to show my pride to the national team that should be the motto of everyone you know soo ñëwee you know it doesn't have to be xan moo fa nekk ñaata nga ma jox Suma national team la gisagum. After that, then uh, something else. You know, so thank you very much. Mom, I'm, I'm happy to see him. I'm, I'm, mm -hmm. I'm, I'm happy that managed that uh, platform. Mom, you know, because honestly, I cannot imagine. Manu on the TV, he was you know. I'm so, I'm so to, you know, to, see that today. Balan Made, suma background bi mu ngi garaaw. allo. <laughs> Eh, jërëjëf monsieur Lamine. thank you very much Mbaye jërëjëf thank euh, nga rek si euh, beneen version kii di Lamine. Mhm. Euh, wane ne kontaan nag boo ñëw na on air wax na. mu suta wax nag lan moo tax mu retire si national team bi waaye tey gis nañ lu tax mu ne mu retire si national team bi mhm. daaxana allegation bi ndig waxoon nañu dafa bëgg a ron jeexe présent mu ne moom mu ngi ko gis comme si mu ngi ko gis social media amul time bi euh, pour ron euh, li di football fédération bi euh, lu mu am time moom rek boobu ñu invite ko mu bokk si coaching staff si mm-hmm. jamono bi. Mm-hmm. ba boo daaxalu na loolu gis nañ tamit Jatau Cissé Ous Diallo sori na ko. Mm-hmm. so sim ne dafa nekkoon ay maye on social media rek pour gis ne des top players dañu ñëw ba de mu ne loolu nekkul débanam mooy tri goalkeeper trainer. waaw comme kon nag kon last mu clair comme wala loolu guur tey pas démb tamit dégg nga ko si géméam tamit mu ne moom tamit intéresse moom fu intéresse mooy si coaching département bi bëggoon na ko coach sax comme ne ko googu fa loolu loolu loolu loolu loolu very good euh, euh, idea because football ne ko always comme euh, moo play football moo ko nekk effet effet ne kon FIFA FIFA président mu nekk il faut plaire so you know even even Maradona ñoom Pelé ñu daw football nga def noppali ne just soo am the euh, fii daa sax mun nga just am nga knowledge of the game like mun ngaa nekk euh, living fii fii fa naka football président sax just nga jàngale so loolu loolu loolu loolu need to play football ba at least nga jëm ñoom tamit nëmpi sa nga jëleen tamit nga liggéey ak gaay tamit mun a mun a mun a mun a yóbbu tamit game bi tu another another another level léegi tamit Lamine war na ko fi tamit anana ah, moom tamit léegi JFF da war a ñëw ñu support leen ak government bi ñëw put all the all the necessary support moo gën a jox ko players yi you have to respect Djibouti as a team yes football you have respect your opponent he will he can disgrace you but tamit players tamit na nga na all gars yi mel population bi magaay sigi tamit GFF te ay tamit élite mu di bu mun a ŋaña gaay boo soo su gaay félee ñoom dañoo ŋaña GFF bi because fans yi ak all stakeholders they point fingers to the GFF GFF mm-hmm. because ñoom ñoo appoint code moo select players yi pour gars yi dem fight so léegi everything da nga a put in order support nañ government yoo support nañ ñu easy win Djibouti boobu bés teel comme mas <laughs> wala fu a must win game. Ah, ah, laa ñu doon doon sa mos mos win game everybody have to go. Mom, I could go with minutes lañ am pour ama euh, euh, tàggoo ak yéen ba next week mm. insha allah ñu jégal bu baax a baax rek last week mënuñu woon a ñëw. Mm. Euh, due to some technical problems waaye bi rest assoné dina ñëw dina ñëw ak yéen comme ni ñu ko defee ak Badembo Touré dinañ ko def ak keneen ak mm. keneen ak keneen pour nga gis di way for woon by next week insha allah we assure you ne waaw incha allah dinañ asone by next week dinañ ñëw euh, ak ñi di Gambia Football Federation euh, ma seen réaction dinañ dem Ministry of Youth and laaj leen ñoom it lan lañ allocate ban mooy budget bi pour gis ne Gambia prepare na against ñi di bug Djibouti di euh, commune game li yëpp nekk na lu nga xam ne askan bi war nañ ko xam si ban boor lañ ñoo laakee askan bi war nañ ko xam fii la moo leeree si Star TV Sport ama banta ba campo quick di rek ñu rapport bi ak Sénégal Algérie ñu gis rek since 1990 Algérie mu ndaw indi di Euh, win na ko euh, this time around euh, in Egypt si néeg boobu Egypt nag mosu ñoo bugg a Algeria win trophy bi di dem all Egypt ñu ngi doon support ñi di Sénégal di ko xam ne rivalry bi diggante Égypte ak ñi di Algérie euh, Sénégal euh, ñoom ñoo contain di full 90 minutes of the game waaye mënuñoo ama score because that early goal dafa damit ñii di ama senegal against ñi di Algérie euh, su fekkee mun nañu am élément bi analyse bi ko waxtu meer nañu si ñu xool nu Algérie score ñi di senegal ñoom Mahrez lañ doon wax waaye gis nañu all those players kampo Mahrez and others mënuñoo pénétrer Sénégalais national ama team bi foogoon nañu Koulibaly absence bi dina xam ñi di Sénégal waaye di only erreur bu ñu gis rek mooy ne deflect of the game after that Sénégal woo soo discipline si gannaaw bi. absolument they were second game bi nu la moo demee def deflected mu di from there it was all Sénégal Sénégal ñoo créé even Sénégal seen goal bi was eh, mm-hmm. yaa ngi forcé pour score goal daf lay daf daf lay Trump. so they have to Sabali ak trophée bi. waaw Sabali waaw ñoom ñoo ko ñëw so moom mooy ambassador of Cameroon moo ko war a delloo si so Algeria bu ko last win woon 1990 la woon time bu ko waxee inside Algeria so gaa war win seen greatest rivals in football mooy Egypte. xam so loolu loolu ne ñoom duñ ñëw. appuisé duñ ko appuisé duñ ñëw. non duñ ñëw with the five thousand fans. bërëg yi dem dañ doon yokk di yokk di yokk ñu waa cinq ñu waa five léegi ñoom ñoo dominé foofu loolu néew rek jëme five ne duñu sax Sénégal bu ko rivalry bu nekk am between di Ferris Ferris ak ak ak ak Desert Fox yi c'est big history sama ne recent game su gars yi play sax daf lay am fight ba nga xam ne da nga ko yóbbu ñu jox la ground pour pour gars yi mu fa play su gars yi effet Afrique comme ne sax crime bu dee am seen syndicat so ñu war a win cop syndicat dafa métti gars yi parce que Sénégal still la xam nga play as a team trainal lu nekkoon nag ne all the doors boobu beneen dugg si li te Algérie googu was outstanding de mm. moo dem ay na gars yi dañuy mm. góor waaye na gars yi mm. def nanga nag bu na ba fenn bu ko dee dee weer clair favorite bu ko couronné soo ko Sénégal ñoo ëpp team Afrique yëpp xam moo tax ñun gars leen favorite to win dem na ba xam nga rek Algérie dóor na ko te mosul dóor Algérie si African Cup na sa ay tasgin ay World Cup qualifier Sénégal daf leen mën a dóor gaal ba still na gars kii tam puusil la because Afrique ni la meloon amoon nañ best team in Africa dem nañ ay quart final dem nañ feneen gars yi luus gars yi ñëwaat waaw football nekk stop lii um, tamit rek ne uh, lan la mën a jox Sénégal when it comes to football because yaakaar nañ ne uh, hmm. Sénégal jamono bi dia frustrated because foogoon nañ ne war nañ mën a win di AFCON bi uh, ñoonoom so close in 2000 and against Cameroon Aliou Cissé si boppam moo nekkoon di captain moo loos euh, tey indi leen final euh, yóbbu leen fa indi leen Cup of Nations indi leen final euh, mu losali trophée bi jamono bi Sénégal mënuñoo xam lan mooy problème bi waaye still na rek nañ gën a pousse dina ñëw dina ñëw waaye yaakaar nañ tamit rek ne we have to congratulate the Algerian team naan ne ñoo gis nañ ne seen Gambia la woon non mun nañu wane Uh, is Gambia Sénégal. Mm. Uh, because ñoo gars yi bokkoon ama <laughs> groupe si. draw home and away one word uh, ñu ñëw nag ñu gis ne ñu win ñi di Sénégal twice. draw Gambia twice win Sénégal twice. yaakaar Sénégal war nañoo jàngee. si Gambia ban tactique lañ war a play. Mm. against Algérie against du Algérie sax naari si boppam. incha allah naa si boppam naari seen seen problème su ko di play Tunisie Égypte sax Morocco ñëpp day day tough time si Sénégal da nga war a xool yi. Bouga yekk na ay dédicace ko gars yi naan soo dédicace ko la they can frustrate you dama loolu ñoo xapunoon mhm. Bouga force à gars pour dara gars noon try pour protect seen one nil sakora ñu ñëw yaa game bi déma noonu leen noonu leen noonu leen play they don't play nothing donc we have to conquer tamit Algeria soko jaaru ëllëg team euh, indi tournoi yoo xam ne question defeat dem dem up to up to bi final te ñoo gën a score goals au delà bés près tamit si ñoom la gars yi jógee tamit ba Sénégal day aftu lu xam ndax tamit sa boolan xaan gannaaw waaye am na Sénégal am nañ penalty fu nga xam ne ref bi gisuñ ko bi ko sof waaw euh, la joyee waaw amul boor bi tànki saay bi la kii ah, waaw bërëb VAR bi dafa war nañoo console bi VAR console bi waaw mooy saay rek sax Sarr boobu nag ki ki gum boobu sax foofu la ko boobu la kii tànkam bi nag dóor so kooku boobu dem a so living a corner te te te booy Sénégal play Sénégal moo laal bool bi so moom gisut nag so tamit boobu dafa war a console di ah, VAR waaw waaw final la so dafa bëgg a protect bu baax dafa lu tuuti il was a penalty ba génn ñu ne la indi VAR mu ngi fa contrefatal fo mu am. waaw ñu fo wala ñu camp fo wala ñu foofu nag ne war nañoo console VAR bi. waaw non non am na. Euh, team bi claim na penalty la you know console sa VAR bi wala VAR bi ñoo war na console ref bi. ren bi waaw foog na baax na rek day nekk. érodé but they let it they let it go xam nga both French French French official bi moom moo nekk di euh, lead affaire yi moo nekk di. Euh, ah, mm, mm, assistant. da ko mën a équipe France bu ñoo a understand système bi so moo na doon di lead gars so I don't know why they don't uh, uh, call that uh, referee attention pour gars yi mën a check loolu it was a penalty penalty but Sénégal na gars yi keep on the pushing la bu ko sofaa day wii day who knows 2021 euh, mën nañu in in in fii boobu Gambie ñu ko yi ñu ko waaw Gambie moom ko ñun waaye still na xanaa rek comme ñoom ñu gëmee is now because they have the team no matter ñoom ëpp team yi Africa bu ko source besoin place yi they are playing week in week out regular regular football la ñu play te ñu ngi si si team bu gars yi nekk gars yi ngi start regularly so it's sad it's for them but gars yi pusoon leen comme to Algeria for the spirit yeah for play and hard to Sénégal but na have the belief football never stop it's very sad xam nga rek ba lose ko Aliou Cissé a démb xale yu di lose final spécialiste African uh, uh, the biggest thing. all right uh, thank you very much Kampo uh, thank you very much uh, ñëpp ñi nga xam ne jamono bi rek ñu ngi jàppoon si programme bi gërëm bu baax a baax suñu caméra caméra si mooy Lamine Menga ak team bi ñoom Mariama Kouma Euh, gërëm bu baax a baax si contrôle room euh, euh, nañ a baax ko waxee rek comme ni am ñu nga xam ne bokk nañ si lu nga xam ne gis nañ ko on social media nañu taxaw pour na ko nga xam ne waxtaan na ak Star TV wane na ne loolu nekk am gis nañ tamit rek ku ni kii di Ba Dembo Touré tey waxtaan na ne amut kon nag ne lu ñoo a def rek mooy dinañ tamit am di Gambia Football Federation waxtaan ak ñoom lan mooy waajaay bi lan mooy préparation bi against ñi di Djibouti octobre la two months moo si nekka euh, ministre tamit lan mooy seen waajaay lan mooy budget allocation bi pour li di ama football ndig ne euh, still na bu fekkee ne ñu ngi ko bàyyi ñi di Gambia Football Federation bi dinañ still di ndig ne xaalis bu jógee ko si FIFA subvention bi is not meant for the Gambian national ama team loolu yaakaar naa ne dafa wala leer képp nga xam ne yaa ngi sànni di football euh, grâce football la euh, lañ gisee xaalis boobu waaye Gambia Football Federation gis nañ ne xaalis nekkul di am fu nga xam ne fa lañ ko war a amee ñu ko def si national ama team bi euh, kon nag yaakaar naa ne is high time Gambia Football Federation rocci seen loxo bu baax a baax a baa si koppar bi bàyyi ko FIFA ñu ko bi la ñoom ñoo ko a jël ñoom ñoo seen la kon nag ñu leen dox daje ba next week bu baax a baax Mr. fii si biir lii di kër bi